alkande ñeel na ñeel na la de alkande ñeel na la yow mi Ahmed Cissé alkande yaa ngi ci yoonu alkande ndax li ngay wax ak li ngay jëf sa jëf ak say wax wuute wu dara yaa ngi ci yoonu alkande nag te suñ borom nag comme moom ngay attaqué ma doxal ba ci kanam da nga xam ne suñ borom kenn du ko attaqué ñi ko attaqué woon ñëpp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 voilà gis ngeen ko ba léegi mi ngi continuer wax kan li muy def yëpp moo ko tey léegi nag comme dugg na ci téereb suñ borom bi loolu nag euh, léegi rek dina xam ni suñ borom moom kenn du ko attaqué voilà xam nga bës la ci xam-xam xama lu muy layal lu mu mën a doon daal mooy attaqué na sunu borom te sunu borom moom ku ko attaqué doo ci jëlee ndam voilà xam bu rëy nag wala xam-xam bu bari mën naa yóbbu sax nit ki safara wala loolu moom na ko xam bu baax a baax a baax xam-xam bu rëy a xam-xam bu bari mën naa yóbbu nit ki safara parce que da ngay dem ba naaw ci sa xam-xam jàpp ne yow maanaam lu ñëw rek war nga caa mën a am xam-xam war nga caa mën a jële xam war nga caa mën te mbir mi dimbawul noonu daa am foo war a yem voilà foo war ta yem nag boo fa yemul suñu borom kenn du ko sóoru te ku ko mos a sóoru la loolu na leer ci yow bu baax a baax a baax lii ngay def nag yaa tey mag mu mag mu yaroo diku nga eh, yaa li ngay def voilà doo xale doo jaayil doo dara voilà Sénégal nag yaakaar naa ne xam nga ne diine moom ñoom Seydina Omar ñoom Aliou saxaaba yooyu noonu da leen a jaral lu nekk boo mosaan a wax ci dara ci diine ji wala lu tal dana la fekk fan lay fekk def la li lay def parce que diine duñ ko caaxaane mooy ngeen gi diine beneen bi ci des tamit ñu naan voilà euh, chrétien voilà dañ ko war a ñaanal bu faatoo yooyu déedéet dan ab chrétien bu bala muy faatu nañ ko ñaanal njéggalu yàlla mu tuub dugg ci diine bu fekkee faatu na kenn waratu koo ñaanal njéggalu yàlla ndax nekkul ci diine lislaam bu dee ku nekk ci diine lislaam la ñuy ñaanal euh, ci ci diine lislaam bu dee ci ñoom ñoom ñu ñaanal ko lañu xam waaye bu fekkee faatoogul daal mu nekk nit ku baax da ngay ñaan suñ borom euh, euh, mu doon koo xam ne ni dafay tuub dugg ci lislaam loolu nga koy ñaanal ñaanal ko tamit gudd fan sañ nga ko waaye bu faatoo nga koy ñaanal ci waa comme ni waa lislaam di ñaan non loolu moom amut maslaa beeg raayalante bii ñuy def nii loolu du noonu waaw mbir mi nañ ko wax ngeen gi diine mooy lislaam suñu borom nee na ngeen gi diine mooy lislaam voilà lislaam mooy ngeen gi diine waaw alxuraanul euh, karim mooy euh, ndeyi téere yi voilà képp koo xam ne attaque nga alxuraan ñi attaque alxuraan yëpp bu la neexee def leen ay gëstu képp koo xam ne mos naa alxuraan wax ca loo xam ne lu dul noonu la fa mujj neexut fa mujj ñaaw na voilà ñi ñi doon jéem a soppi alxuraan ak maanaam ba ci naar yeeg occidentaux yeeg fépp rek képp koo xam ne nag duggoon nga ci euh, domaine boobu te maîtriser woo ko rek suñ borom indil na ci alkande maanaam alkande gu mett gu yaatu dala caa fekk voilà te boo faatoo ay duma buñ la dumawul fii ci àdduna boo faatee ñu duma la parce que dafa am yoo xam ne boo doonee ab jullit ne koo jaayil am na yoo xam ne waroo koo wax ci penc mi waroo koo denc sax ci biir ba koy wax ci penc mi suñ borom kenn du ko fawee alxuraanul karim bii ko koy fawee rek wax dëgg yàlla xamoo dëggi dëggi dëggi suñ borom waaye nag baax na doo doxalal ñu dem rek alkande daal ñeel na la tuub da nga tuub ak doo tuuba loolu moom yow la concerné mais ñun ay jullit lan laal nga nu nag waaw suñu xol nga laal ñun am nañ fu ñu waxee danañ ko wax voilà duñ ko téye ñun dund tey ak dee suba lañ yemale li nga wax ni jékkul jaaduwul te yow génn génn nga si sax si lislaam parce que am na yoo xam ne soo ko waxee ci penc mi waxuma dawaay ñi nga xamul xamuñu sax wóor na yàlla dañ ci